waaw lii dañ ko organiser dans le cadre euh, benn lancement bu association bu tudd ASEMEDA association sénégalaise de maracana et discipline associée maracana bi nga dégg ci biir nag moom sport bu bees la boo xamante ni suñu mbokk Côte d'Ivoire yi ñoo ko créé créé ko ba commencé organiser ay coupe d'Afrique Sénégal également bëgg see dox wàllam ndax dañu ne nag. Afrique lépp lu ñu fi initié Sénégal da cee war a bokk yàlla dogal na nag ci suñu loxo la jaar ba tey ji nag ñu bugg koo indi ci Sénégal développé ko Marakana nag sport bu particulier la ndax boo xoolee ci football la jóge mais football dafa nekk loo xam te ne boo ci nekki am na at yooyu toll doo tootu ko mënati ndax sa jot sa liggéey du la ko may wala terrain yi day yaatu ci mag ba du ko mën yàlla dogal nag Marakana ñëw pour mottali loolu Maracana football la boo xamante ni ci terrain bu ndaw lañ koy def comme genre petit yi mu xaw a niroog handball ak basket moo tax léegi ñu am chance ne léegi retraite football moom amatul ci Sénégal ndax Maracana moo tax ñun ñi nga gis ni ku ci nekk passé nga âge football mais te yàlla may nañu chance ñu mën a maintenir grâce au Maracana. nañu ñëw euh, maintenir seen forme également mën a xeex ak sax ak feebar yi nga xamante ni dafay xaw a sonal booy yem ci yenn at yi. Maracana bi commencé nañ ko football ay compétition africaine depuis 2012 ren lañu organisé sen 7 e édition de la Côte d'Ivoire lañ koy organiser té ñu ngi def pour que ñu am ay équipe. yu taxaw yo dem Côte d'Ivoire représenter Sénégal.